soo noo def. Tawa kii yaa ngi dama bëggoon pour nga jox ma sama kii nu mu tudd li ma fi jot am nii semaine bi nii mu laa bëggoon pour nga avancement kii daf maa woo nii léegi léegi mu ne ma pour naa jënd crédit su ma jëndee crédit 10 000 francs hmm. après moom dafa may may 100 000 francs la ma war a may. mooy la nga jënd crédit 10 000. waaw mu may ma 100 000 francs. kii ki ma kaay ma kaay ma tàllal yi ki ma woo la woo. xaaral ma taal la lamp yi la <laughs> lamp yi. lu xew lu xew ay waay ay waay. ah kii woote laa koy wax. <laughs> daa ma woote li xew ci mim réew. Ah. kaay nii rek ma taal la lamp kay toog ni ko dootoo ko defati mën naa la wax loo xam ne turam sax ni mu tudd. dafa ah, xew dafa xew. Mhm. may ma rek xaaral ma génne la tur bi nii ki ma woo ko woo léegi nii. lan la ñu wax. xaaral mooy sa kaa bi nga doon wax dégg. kaa bi ki ma woo xam nu mu tudd Babacar Sarr Ah. ki la woo yow. madame loolu la ma wax Babacar Sarr la ma wax. après waatal ah. la ci sëñ Babacar. lii la ma wax ci la ma jëndee ne ma barki Serigne Babacar si boo jëndee euh, dix mille francs crédit. Ah. nga may cent mille francs. tey la feetu feetu ñoom waa Orange nee na ñu baal ma jëlal numéro xam nga ñaata la. ñaata la xoolal ndax bi ma yor moom nga yor. waxal ma de 77. 692. 34 16. waaw 692. 34 16 moom mooy woote démb léegi man dañ ma woo démb ne ma. Uh-huh. Ah, tey la feetu kii bi réseau boobu ma leen doon wax. waaw waaw ci opérateur yëpp la ah ci opérateur yëpp la. mu woo ma téléphone ne ma. ta sëñ Babacar moo ñu boole dèjà ma daf maa daf maa xaw ma daf maa topp foofu ma léegi daal ma xam naa moo nekkoon mère xaar boo <laughs> mhm. ñu jàppee sëñ Babacar yi dugg bi <laughs> ma dugg woo ma ne ma jëndal carte nga xoos ko mhm. ma jënd carte xoos ko mu ne ma jiitalal 77 man ne lay waxal <laughs> mhm. waaw pour moom jënd naa carte xoos ko ma taxaw di ko xool ma wax déglu ko ba wax pare man ko sëñ bi mu ne man ko xam naa la ci arnaqueur yi dëgg donc Babacar Sarr tudd ku mu woo ci numéro bi ma leen jox léegi bu leen ko jël waa orange li ngay wax nii dafa bëri te parce que tamit def nañ euh, def nañ ko waaw def nañ ko aussi koo xamante ni man xam naa ko xam naa mi ngi toog Babacar Sarr numéro mi ngi nekk 77 77 692 34 16 kum ci woo bul ko jël sa genre arnaque dafa bëri am na ko ñu woo am na koo xamante ni man xam naa ko dañ ko woon ne ko gagné nga 500000 demal demal demal demal euh, ca ca ca kii ba ca boutique ba nga daal di uh-huh. ñuy dugal crédit uh-huh. Uh-huh. yaa ngi dégg gagné nga 500000 koo xamante ni musul jouer nga ne ko gagné nga 500000 ko fitam day def waaye mais sénégalais xam nga lan nanu yeewu tuuti <laughs> demal nga jënd crédit nga jiital sa waaw tamit sooy dap sooy tapé sooy tapé crédit. du da ngay def dièse étoile yaa xam ne ci télé. waaw 77 bi bëggoon na. trian trian rek dëgg la. ba 77 suñu benn la sécurité ñu bëgg ñu koo jël boo ko nangu loolu pour la da nga ne yeewu nag gis nga ci ci côté boobu noonu laa lay expliqué dafa dem ba yegg ci enregistrement yi Sénégal bu ñu bëgg yàqu dëkk bee toj de enregistrement yi dëkk bee toj de whatsapp yii whatsapp vocal dëkk bi nañu def attention dëgg la te bàyyi seen xel Mm-hmm. àddina bi mi ngi bëgg tukki ay waay mm-hmm. bàyyi ma ngir yàlla bàyyi ma balaa may wax sa tur fii si bàyyi <laughs>